mbokk yi ñoo del seeti rek ci waxtaan yi faral di def ci Cheikh Ahmadou Bamba saa yu ñu gisee wala ñu dégg lépp lu nar a yoon wi wala ku dal ci yoon wi ci om wala ku dal ci Seexul ci om wala ku dal Tuubaa ci om ñett yi mooy suñu xëy mooy suñu ngont du ñu deñ mukk saa su ci du ko défendre ba ko dañuy sàngoo suuf insha allah mbokk yi lii may wax nag bëgg naa képp ku di jullit nga déglu ko rawatina nag ku di murit ni seexul xadim nga yaakaar mbokk yi nañu xam ni seexul xadim dafay ñëwoon ngir beesal diine ngir beesal islaam fekkan fi mag ñi nekk ci diine mais diine ju sell jafe fi sëriñ tubaa ñëw yeesal ko lil mustapha nawaytuma jaddidu sunnatahu lqarra wa inni ahmadu mbokk leer na nañ neen waa fekk diine ràpp raaf mel ni dëkk boo dëkkan ba yàgg ñu gent nga ñëw xamatoo fu nit nekkan ne ma ñëw bay ko radu ko luqat ko ba mu leera naññi nee noonu laa def yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daani diinun siwa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu amul jënn diine juma nekk man Seexul Xadiim lu dul diine ji yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon kon nag bu ñu gisee ñu tekkiwul dara xamuñu seen bopp sax dara xamuñu ci diine dara xamuñu ci lislaam dara di mbël di tël tëli mel ni beraf bu fett di ratatati war nañ leen di arit arit nopp leen te déglu li tax may wax na mooy màggal gu gii ñu jublu muy màggalu Tuubaa damay wax ni ñu ci seen yoon nekkul nañ ci noppi te maandu ci màggalu Tuubaa bu ngeen ci kontaan dañ ko def bu ngeen ciy bëgg dañ ko def bu ngeen ko soxlaa dañ ko def su ngeen ko soxlawul dañ ko def su leen neexee dañ ko def su leen naqaree dañ ko def genn kàddu dong lañ ci doon déglu muy kàddu Seex Mamadu Muntaxa amul ganeen kàddu guñ ci déglu lu kareen kara bi kàddoom jógee ba tey lañ ko noppee waajal di ko préparé ci ni mu ko bëggee te noonu la ko Seexul Xadiim bëgg kaneen ku mën doon président woo ministre député woo ñëpp ci yam laa wax ku ci sa nekkul maandu ci màggal bi seexul xadim moom la dinaa leen leeral mooy kan moom seexul xadim mbokk yi sëriñ mooy ki nga xam ne mboolem nit yàlla yi mboolem nit yàlla yi kenn ku ci nekk wax nga ko tàgg nga ko sarga nga ko mbokk nañu xam ni seexul xadiim ku ñu wax seex saadu abi nekk wàlliyu kaamil seex saadu abi àgg na ci ak wàlliyoom ak wilaayatoom wax na ni bi ñuy feeñ jamono dañoo bind aw turam ci jant bi dañoo bind aw turam ci weer ci weer yi def ci saadun abi ñëpp di ko gis wala borom basira yëpp di ko gis mu nekk wàlliyu kaamal Cheikh Saadu Abi lan la wax bi sëñ tukki géej gi ba ñibbisi dañu koo laaj ci Seexul Xadiim wa badrin muniirin xaaba fil xaar bi sumala xamil xaar bi sam wanti saara hani an li sa diinil xaribi li suy xadaa yetiihu sururan min ku wabtixaara mu ni soo bëggee xam Seexul Xadiim mooy kan mooy ki nga xam ni bi mu tukki géej gi weer la moom sëñ Touba waaye Cheikh Saadu Abi nee na sëriñ Touba bi mu ñibbisee ci tukki bi ab jant la ku mu neex ak ku mu naqari tiim na la te mënatoo koo faj mu ni du ma ndokkeel Ceerno Birahim Faati mi mu fi bàyyi wan du ma ndokkeel maam Cheikh Ibrahima Fall du ma ndokkeel doomam yi xam nga kan lay ndokkeel ñu ne ko koy ndokkeel mu ni diine lay ndokkeel diine mi nga xam ni bi sëriñ Touba dem ci géej gi ab drapeau daa wàcc sa ngéem bi sëriñ ab drapeau bi yëkkati ku ne fay ba kere bés yi Cheikh Saadu Abi loolu wax Cheikhul Xadim mbokk yi moom Cheikh Abi Cheikh Sidiya Baba bokkan ci wàllu yu mag yi nekk gànnaar moom dafa xool Cheikhul Xadim ba yàgg mu ni ko asee ahmadu niamatun awlaaha haasi alxalaa'iqa kullaha mawlaaha yarda isaa jarrati al muslima ilman bi anna al ilahu ajraha ne seexul xadim a ngi noonu mbokk yi sëriñ tubaa mooy koo xam ni murit yi moomuñ ko xaadir yi moomuñ ko tiijaan yi moomuñ ko xiiwal la yàlla xiiwale àddina bi yépp ku bëgg jariñoo ku bëggul nag bàyyil na fi ñun ñu téye ko ñun ñun murit yi mu mooy koo xam ni saa yu mbir dalee ci kawam ba nga di ko yërëm naan lii mitti nee na moom seexul xadim day xam ne loola suñu borom a ko teg ci kawam te yàlla lu ma teg ci jaam loola mooy la gën seex saadu abi lii moom a yéem Sëriñ Tuubaa mbokk yi boo xoolee benn naar gànnaar bu ñu wax Ahmed ibnu Aqil ad-Daymaani moom dafa wax ni dafa fekk ñu tudd juróom-ñaari wali yoo xam ne dañuy wax ne ku man seen tur lu tàbbi sawara Cheikh Saadu Abini Cheikh Ahmed Ibnu Aqil ad-Daymaani ni leen des de ñu ni ko juróom-ñaari wali yooyu ku mën seen tur di leen tudd suba angoon du dugg sawara mbokk yi juróom-ñaari mooy ñii tayfuuru maarufun uwaysul jiili abu yaasha walqasaali isticmali zikruhum mashaan sabahan taslami min almakaarihi wa min jahannami والسعدي القطب الصريف الساسلي xawsu wara fi ajilin wa ajili bi mu tuddee juróom-ñaari ñooñu ñu ku leen tudd suba ak ngoon doo tàbbi sawara naar gànnaar bii moo leen ni ko kan moo ci des mu ni wa saaminul xadiimu bamba ahmadu man mislahu fil xarbi laysa yujadu mu ni juróom-ñetteelu wàli yi mooy si ahmadu bamba ku mel ni moom mu seetu ci àddina bi mu seetu Afrique de l'Ouest mu suuti ko gis moom si Ahmadu Bamba ku mel ne moom mbokk yi ba tey jeexul de awliyaa ulaahi yi ñu tedd ñi moom Ahmad ibnu Aqil moom ad-Daymaani ma la waxat léegi dafa dem sax baa mu ni in kuntu qad aqartuhu fa kam min aqirin fi rutbati taqdimi mu ni waaw su fekkee sëñ Tuubaa laa mujj tudd itam ñaata ñu mujj nga xool ñu jël place première daal ne yonent bi sallallahu alayhi mooy ki gën yàlla bind te mooy yonent bi yàlla mujj yónni kon mujj woote texuta yées bari waana yàlla fu muy def nit ki gën mu mujj ay mbiram ba ñëpp woote ba pare koo koy doog a koo koy seexul xadim moo tax mu ne in kuntu xartoo sëkran fa kam min axirin fi rubati taqdimi waaye mbokk yi ku ñu wax saalif sarif mohamad ibn aal mohamad ibn aal ibnu adul bokkoon ci naari mursali yi bokk ci ni ragal yàlla ba ñu seere ko moom lan la wax ci sëriñ Tuubaa da koy xool bàyyi mu ko yaa ruuxa jismal wara yaa zeyna kulli nadin baqiita ma baqiya al fi l mu ne sëriñ Tuubaa daa mel ni jëmm yépp dañ ne kenn muñu ak ruu yow Seexul Xadiim yaay seen ak ruu mbokk yi am nañ keneen koo xam ne moom dañu ci ñooñu wala maa laqiitu Cheikh Ahmadu Burhana nafattu yamini min xubaaril masaayiqi nee moom bi mu gisee Serigne Touba doon na ko sëkk aw lay nee na mënatu la puuseeram rek Serigne fi jiitoon mu ñu koo gis mbokk yi. kon nañu xam Serigne Touba mooy kan nañu xam Seexul Xadim mooy kan am na ci koo xam ne moom mu gën a téye yéeme ci naar gànnaar yooyu moom dafa wax ni tariqa seex yaa ni ma tariqa xadimi rasulina samsin aqiqa mu soo bëggee xam tariqa bi gën ci tariqa yi mooy tariqa Seexul Xadim bii di tariqa Rasul nga xam ni loolu ko nit yàlla ay seereen mbokk yi kon nañu xam kan mooy Serigne Touba nañu moytu Serigne Touba nañu bëgg a seexul xadiim mbokk yi ñiy mbël-mbëli ñiy wax te xamuñ na noppi ñun Serigne Touba lañu jaay suñu àddina jaay ko suñu alaxira jaay ko suñu dund jaay ko suñu dee alxuraan ko wax inna allah istara min anfusahum wa amwaalahum bi annahumul janna yàlla ne na jënd naa ci ñan ci ñi ma gëm man yàlla seen alal yi seen doom yi moomatuñ ko ak seen bakkan yi ak seen jëmm yi lépp man yàlla maa ko moom loolu nag mooy njabootu Seexul Xadim yi yow mi bañ Seexul nag noonu ko ba ni doo màggal si màggal seem gii toogal koo man a doon laa wax waxuma kenn doon de ku man di doon ñu lay woowee kilifa ak aada ak foo mën a dëkk yaa xam ngay ab ministre yaa xam ngay ab député yaa xam ngay ab foo mën a bokk am meer ak lépp lay yemale bu fekkee màggal Seexul Xadim gi ñëw na toogal ba xam boo toogee màggal gi danaa jag wala du jag yow at yi nga daa màggal si est ñun yëg na ni mus ngaa am kër Tuubaa est-ce que mun ñun mus nanoo yëg ni mus ngaa màggal si est ñun yëg nan sa dugg Tuubaa ak sa génn Tuubaa est-ce que kenn mës na laa xam sax ba xam ñëw ñëw Tuubaa wala ñëwoo Tuubaa Seexul Xadiim maam Ceerno Birahim Faty Mbacké Daaru Muxti dafa Tuubaa de lu ma danaa ko def te lu bëgg danaa am allahu akbar mbokk ku bëggul toogal ñu bëgg ñu jël mais mënu leen a tee dara mënu leen nit ñi mën leen a tiitloo nit ñi mën leen a tee nit ñi jaay seen bakkan Seexul Xadiim damay faral di wax ni bu ñu doon xëy junni nit di xëy di dee Touba ci benn virus bu am lu téye nit ñi di dugg Touba di siyaar ngir digal Serigne Touba bi ñun xanaa bu ñu goree bu ñu gëmee sëriñ Touba rekk war nañ koo dëggal war koo gëm ngir li mu wax koo xam ne toog nga ni ñett dong moo tax ma tukki tukki bii ñett nan xool ñett yi taxal sëriñ Touba tukki ba xam njariñam ma ci wala déet ñu ne ko Seexul Xadiim ñett yi taxal nga tukki yan la mu ni sawabu xaybatiya an allaha araada wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi nee na ñett yi doomu moo taxal ma tukki ñett yi ñu ne ko ban ak ban mu ne bi taxal may tukki bi ci njëkk mooy bi taxal may tukki bi ci njëkk mooy sunu borom dama bëgg jox daraja joo xam ne ku dul man seexul xadim duudu lu faat lay doon ñu ne ko benn mu ne ñaareel ba sunu borom dafa bëgg ëllëg bu yonent yi taxawee saxaaba yi taxaw siddiqiina yi taxaw ulama al amili yi taxaw awliya ullahi yi taxaw Serigne Touba nee na ma ràmm mboolem koo xam ne yaa ngi doon wax ne ci tariqatu Seexul Xadiim daa bokk am murit la ma ràmm la ñu ne ko ñaar mu ni ñetteel ba mooy damaa bëgg a liggéeyal bi sallallahu alayhi wa sallam fële ca bu ñuy wax dawme am ñu ni dañ dafay liggéeyal yonante sallallahu alayhi wa sallam sax ci ba faawtulu ci dañ ñett yi rek Sëriñ Tuubaa moo tax ma doon liggéey mais kon mbokk yi lii war naa tax ñu màggal yéen ñi bañ Sëriñ Tuubaa nag li ma leen di wax mooy muutu bi xaysikum dee leen seen mer mi muutu bi xaysikum yuriiduuna liyutfi'u nuura llaahi bi afwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walaw kariha l-kaafiruun da ngeen a bëgg fay leeru yàlla yow bu ngeen toog sunu borom taal ab taalam na te kenn mënatu ko fay Seexul Xadiim moo xool boppam de daraja tii taalu walaysa tanxafit wa man naxaa minal waraa xafit yaqfit sama daraja yëkkatu ko ba faaw te dootul wàcc képp ku ma bëgg a suufeel yàlla damm la yàlla suufeel la te moom Seexul Xadiim mbokk yi nee na man am ma nii bi suu i baa abi darar dunya wa uxra laa yu xaalis sara ku ma yéene lu tuut lu mu tuut tuut ci lu bon wala lu ñaaw nga yéene ko man Seexul Xadiim àddina ak alaaxira duutu tàggu bàkkaar duutu tàggu lu ñaaw duutu tàggu lu bon mbokk yi waa leen Seexul Xadiim teg ñi ko bëgg nag mu ni wëccul la sii yow ma wujuhu tab yaddu nee na xar kanam ku sopp yaa xam ma di bokk waaye sopp ma rek ma Seexul Xadiim nee sa xar day leer day belli ëllëg yëmal xëyaam akbar yàlla di bellee di leer sa day leer yow mi bëgg kon mbokk yi bëgg sëñ Tuubaa mooy njariñ waaye nag biraas man baari nii baari man yu baari sa mun man képp ku léewtoo yàlla ngay léewtool arrêté leen seen caaxaan yi ak seen foy yi seen tappal yi bàyyi leen ko mën leen a fexe mën ñu doon màggali Tuubaa yi ñu def ci télé yeeg di ko def ci rajo yeeg ñu bëgg rek ci ay masque ak nangam ak nangam yëpp ay caaxaan rek la bu leen ñu fontoo Sëriñ Tuubaa la ñu gëm gëmuñu président gëmuñu ministre gëmuñu kenn ku ñu seexul Xadiim moom lañ jaay sunu àddina jaay ko suñu alaaxira jaay ko suñu dund jaay ko suñu dee moom moo xam ne billaahi la si laa ilaaha illaa huwa xayaati wa mamaati xarakaati wa sakanaati maa sayyidinaa Muhammadin sama dund sama dee sama jëngu sama dal lépp jox naa ko yonent suñu dund suñu dee suñu yëngu suñu dal lépp jaay na ko si yoon xadim kon arrêté li caaxaan yi moom ci am moom seexul xadim nee na man ku ma gërëmul lu may wàññi ñu ko ndax lan mun yàlla gërëm na ma benn yonent bi gërëm na ma ñu ne ko ah mu ne xulafaal arba gërëm na ma muy Aboubacar Omar Ousmane Ali nee ñi ñëpp gërëm na ma ñu ne ko ak ñan mu ne Malik gërëm na ma Saafi gërëm na ma Ahmed Hanbal gërëm na ma Abu Hanifa gërëm na ma si Ahmad Tidiane gërëm na ma si Abdul Xaadir Jiili gërëm na ma Zazali gërëm na ma nee moo man ku ma gërëmul ko lu may wàññi lii la Seex Xaadim wax daan nag Muhammadun nuuru xalbi astaniiru bihi wa rufqati ahlu badrin mudatul umari nee na man ku ma gërëmul itam leeral Muhammad ci laay doxe leeral Muhammad moo leeral sama xol moo leeral sama lépp mu ne te ba kër tukki maa ngi ànd waa ahlu badrin mbokk yi bu leen ñu fontoo arrêté li si caaxaan yi Touba la woote mënu leen a fexe ba ñuy daan ñëw Touba virgule wàññeeku ci day ëpp waaye du wàññeeku yéen murid Sëñ Touba yi laa waxal nag képp koo xam ne dégg nga ñu ne mbas mbas am na ci réew mi coronavirus wala nangam ak nangam tax nga ni ren du ma màggali ndax coronavirus. màggali yow na la leer bu Serigne Touba ñëwoon na déclaré guerre ci doo dem. képp koo xam ne bu Sëñ Tuubaa woote woon jihaad déclaré guerre bu geesoo gëstu ci ginnaaw màggal Tuubaa ak ren boo ko nar a tardé sax doo ko tardé billaahi wallaahi taala képp koo xam ne bu Sëriñ Tuubaa déclaré woon guerre bu geesoo gëstu ci ginnaaw màggal ren jii boo ko nar a tardé sax doo ko tardé. man jàngu ba aw ma xam-xam man mbaam. ngir dëggal waxi Seexul Xadim ak dooleel waxi Seexul Xadim ak dooleel liggéey Seexul Xadim bi.